ma sànq njaalu président de la république lañu fi indi njaalu Sénégal lañu fi indi ndax tiis bi fi dal foog naa ne sànq bi ngeen koy wax sax xol xol yëpp yëngatuwaat nañ jaruñu ci dellusi si xam leen ne métit bi ñëpp xam nañ nu mu toll te itam bokk nañ ko ak yéen ndax ku fi toog ci jigéen am nga doom jur nga ku fi toog ci góor tamit lakk saale ka noonu ak ku fi toog tamit ci boroom kër war ngaa mën a xalaat ne soxna soxna si fi jóge mënoon mënoon soxna jabar la woon ah mu metti lool nag ndax ni mu demee ci ni mu demee mu dekk nekk loo xam ne ci ñun li ñu xam dëkkoowul ak suñu aada dëppowul ak diine kon boog dina doon lu nga xam ne lu ñu war a xalaataat la mais itam lu ñu war a bokk ñun ñëpp xeex ko ndax li fi chef de quartier wax mooy jikko yi moo changé jikko yi nag ci changement boo mu changé suñu njaboot gu ndaw gi la gën a la gën a affecté mooy maanaam jëfandikoo yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo di tàggaleek sa sago di yóbbu foo xam ne xëy na sax yow ña nga xam ne ñoo la jur te dangay dem ba jaaxal leen loolu lu metti la ci senegaal muy njaboot gi liñ ci war a def metti na lool ndax xale yi léegi dañoo bokk ci lu nga xam ne dañ koy jëlee foo xam ne nekkul woon ci suñu aada toppatuñu diine bi wala ñu génn ci maanaam daal rëcc ci seeni waajur loolu mu nekk itam lu nga xam ne moo ñu yóbbu ci lu demee nii ah lii moom war nañ fay jóge te foog naa ne looloo tax président de la république jóg waxoon ci ci loo xam ne muy loi yi nga xam ne moom lañ leen war a daan ak yooyu pour ñu xoolaat ko pour wax leen ne rek président de la république xam na yëg na te itam mi ngi ciy wax mi ngi ciy jëf ak service am yi nga xam ne ñun ñooy ministère de la femme ministère de la justice ñi nga xam ne ñoo yore loi ak ministère de l'intérieur ñi nga xam ne mooy yore ñiy toog fii Euh, sëriñ Fallou Ndiaye ñu ngi leen koy jaal ñu ngi leen koy jaal ñu ngi koy jaal itam boroom këram sa turandoo la foog naa ndax xale la amoon na yaakaar lool ci jabaram ñu yóbbul ko ko mais itam jabaram dem na mu des ak njaboot njaboot googu tamit ah teel nañoo ñàkk yaay lool loolu yëpp bokk itam ci la nga xam ne moom la ñu dénk rek kon boog tey bu ñu toogee ngeen ne nañ ko bàyyi xel foog naa ne dangeen ngeen ñu wax rek ñu gën a taxaw ci li nga xam ne moom moo ñu wax te bu leen ci am benn sikki sàkka bu soobee yàlla danañ ko wax fañ ko war a waxee li nga xam ne tamit moom la ñuy gën a waxati rek mooy ñaax ñaax tamit seetlu yi ñaax tamit ci lu nga xam ne moom mooy fagaru ndax comme ni ma ko waxee sànq métit bi dafa dafa am fu mu dugg ci xale yi am tamit lu nga xam ne xëy na suñu dëkkin ak suñu aada moo ñu ko may te itam noonu lañ loolu la xam ndax ñu duñu ay tubaab ay nit ñu ñuul lañ lu ñu xam mooy ubbil nit mu ñëw bokk ak moom ñu toog bokk yépp mais daal ci loolu nañ ciy teg itam bi gën a xool